asalaamaaleykum askanu Touba askanu xayra ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital ci sunu nuyoo sunu ziar sëñ Muntaxa Bachir Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér di nuyu sëñ Abo fi yàgg te wér sëñ Jiili Mbàkke sunu na fi yàgg te wér sëñ Basiiru Mbàkke sunu wasila yàlla na fi yàgg te wér Mbàkke di nuyu askanu xayra yépp di wax nag ci turu maîtresse sage-femme sage-femme responsable de la maternité du poste de santé de Xayra waaw madame Mbacke soxna Diop maay woo askanu Xayra yépp di leen yëgal ni euh, euh, CPS mi ngi waaj a ñëwaat muy doom yi njagleel xale yi nga xam ne am na ñetti weer ba fukki at ñu defoon ko weer ci ginnaaw ñu war a ñëwaat defaat ko dugg ci biir kër yi def joxaat ko xale yi mu war leen a aar ci sibru defoon nañ ko weer ci ginnaaw gis nañ ni am na njariñ ñu war koo tollanti ñuy ñaan askanu xayra yéen jaboot yi ngeen ubbiral lay seeni bunt yombalal leen liggéey bi ndax sibru baaxul ci kenn rawatina ci xale ba tax na bu weesoo jigéenu wérul yi nga xam ne ñu ngi leen koy jox fii ci poste de santé bi muy ñetti doomu sibru yee ngay gis dañ leen koy jox buñ ñëwee te dañ leen exiger ñu naan ko fii ci suñu kanam kon njariñ la am moo tax ñu bëgg ñu naan ko fii ndox maa ngi ne kaas yaa ngi ne ñetti doom yooyu nag ñuy jox jigéenu wérul yi wuutewut ak doom bu weex boobu ñuy jox xale yi benn la xanaa li ko rax mooy doom bu jaune bi ci ànd te ku xam Niva Kinin ca ay jamonoom ak Amo Jekin mooy loolu mooy doom bu jaune bi bee mooy bi ñu daan wax Fansidar ci ay jamono kon njariñ rek moo ci nekk may ñaan ñëpp jàpp ci xeex si groupe bi di ci jiital euh, relais communautaire yi bàjjenu gox yi képp kuy acteur communautaire rek ñu ngi la ci jiital di la ci woo sëriñu daara yi délégué de quartier yi ñëpp rek ak sëriñ si ci sunu gox bi yépp ñu ngi leen di ñaan ñu ànd ci xeex bi jàpp na liggéey bi ñu xeex siblu mu jeex ci Sénégal gépp na sunu diwaan bi di xayra kon relais yi dinañ ñëwaat seen ñaareel bi yoon dale ko ajjuma bi ñu jëm alxames euh, ajjuma samedi dimanche muy ñetti fan kon bu ajjuma relais bu ñëw na ngeen leen yombalal liggéey bi xale yi nañ leen téye ci kër yi te jox leen ñu lekk ba suur lekk ba suur bi daf ci am solo ndax xale bi bu lekkee ba suur doom yi du ko def benn jeexit waaye mag sax boo lekkul xiif naan garab mën na laa indil jafe-jafe te jafe-jafe yi doonul jafe-jafe yu am solo ndax bu mu ci doon bu la jaaxalee da ngay ñëw ñu saafaraal la ko te doo ci fay dara euh, kon ñu ngi woo ñépp di ñaan képp ku ñëw ci xayra muy relais nañ xam ne ñun askanu xayra waa askanu xayra ñun waa poste de santé xayra ñoo leen yabal ndax dañ leen a tàggat te ñu tëb yabal leen dañ leen a tàggat ba ñu xam xale bi li mu war a naan at bu ne eh, xale bi am ñaari at xale bi am weer ba ci am fukki at li mu war a naan ak eh, bu ko naanee bu ko indilee jafe-jafe nañ ca war a taxawee lépp tàggat nañ leen ci kon maa ngi dellu di ñaan askanu xayra nañ yombalal relais yi seen liggéey ubbi bunt yi yiir leen jox xale yi ñu lekk ba suur téye leen ci kër yi ñu naan garab yi ñu mën a xeex sibru mu jóg fi buñ ko defee weer bi nag danañ ñëwaat beneen weer ci kanam ba muy ñetti yoon yaakaar naa def nañ ko ñetti at ci ginnaaw te njariñ rek lañ ci gis ndax bu ñu daan jot fukki sibru par weer léegi daanaka weer wu ne nga benn ku nga ci am te dañ ñaan yàlla loolu jeex fi tàkk ni mu wàññikoo ci jigéenu wérul yi ñuy jox ñetti doomu sibru yi noonu la wàññikoo ci xale yi nga xam ne ñu ngi jël CPS bi laneen li ma ciy dolli rek mooy ñuy fanaan tam ci sànke naan ñetti doom yi bu mu tee ñu continuer di fanaan ci sànke buñ nàndal ndax mag ñi nga xam ne naanu ñeenti doom yi sànke rek lañ am ci luñ mën a aar ci yooyu te ñu setal barab yi xañ yoo bi dëkkuwaayam ndax ndox mi bëri na te yoo bu bëree sibru bëri. ñëwaat rek di indi leeral ci ne ñetti doomu sibru yi ñuy jox jigéenu wéril yi moog doom yi ñuy jox xale yi ñoo doom bu weex boobu ne ci kaw moo nekk nii gis nga ñetti doom yi jigéenu wéril bu fi ñëw bu commencé am ñeenti weer biiram tàmbali di raf dañ ko koy jox weer la koy ñëw di ko naan te fii la koy naane ci suñ kanam kon xale yi li tax ñuy wër di leen fekk ci kër yi di leen ko jox dañ cee gis njariñ mu ngi nii fii lañ koy naane kaas waa ngi nii ndox maa ngi bu ñëwee consultation ñu xool ne war na koo naan dañ ko koy jox mu naan ko ci suñ kanam su amee weer mu tollanti ko donte rendez jotul sax bu amee weer day ñëw naan si ñetti doom yi daal di demaat ñu ci eh, dolli itam di ñaan bàjjen yi ñu gën a yokk seen sensibilisation xamal jigéenu wérul yi ne ci koñ yi te ñëwuñu di ñu naan ñetti doom yi ñu xam njariñ yi ci nekk ñu ñëw def seeni visite normal ñu jox leen ko ñoom ñu aar ci sibru mën a aar liñ àndal ci sibru waaw comme nag ñi ngay aar jigéenu wérul bi di aar lam àndal kon xale bi bu juddoo ba am ñetti weer ñu continuer di ko aar ba ba muy am fukki at yaakaar naa benn la te ku jigéenu wérul yi moom xaw ma ku xamul garab bi waaye xam nañ ko ndax ñoom sax seen bopp léeg-léeg ñoo la naan ma ñetti doomu sibru yi